waaye dañ doon xaar wax day nee ma imaam Alioune Badara Ndao wax na terminé yéene ne ate bi day ne ay terroriste day waaw ne xaalis boo xam ne kon bu salte la blanchiment de capitaux ak yeneen ak yeneen sax waaw waaye imaam day daal dina koy weddi kon ba tëdd ci ndaxte imaam Badara Ndao nee na laalewul jegewul jegewul ndaxul ci lu jëm nag ci wàllum alxayda rawatina nag bépp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 maam ndaw day ah nee na loolee da yoroon nii rek te sax man su ma doon dawal kon wàllum jiyaat day waaye dama kon man maay jiitu ca terrain ba wax waaye ataka bi di Samba Kane juge bi waaw kaddu yi nga xam ne kon imam Alioune Badara Ndao yëkkati ko day yeeyu ko de jéedee parce que atakat bi nee ko mais yow soxna yi xam ne kon ñoom ñoo nekk sa kër day te seeni nekk ca toolu xare au di xeex est-ce que imam waroo leeralaat nag sa discours bi imam Alioune a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 allahu akbar bu ñu sukkandikoo ci dir fa enquête yéen kaay ne dëgg la fa xaalis am na fa koo xam ne day ñàkk fa bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te jamono joo xam ne ñu ngi waxtaane wàllum kaaraangi ci réew day politiciens waaw ma ne ca parce que tribune yéen kaay nee day ma baleel yoon doom jax ngir mu ñu moom Karim Wade waaw yéen kaay gi bu dee dellu siwaatu Karim Wade ci biir réew day a ah. dana jur nag ay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 xam nga ni kooku ñibbisi fii ci Ndakaaru Njaay jël joob du ko të ñibbisi Sénégal rek waaw ma ne la mënul te laa la wax kon na ñëw Omar Sarr ne dana ñëw parce nekkul ne Macky Sall bi lée mooy tere yegg si Karim ci Ndakaaru laa la wax daal di fii wàcc enquête yéene kaay ne waa ji nga xam ne nag dañ doon wax ne Karim Wade moo ko yónni tey dañu jàppoon ko nag ak ñeenti millions ci aéroport Ndakaaru bi waaw booboog léegi kon am na fukki weer waa ko doon arrêté mujj indi jafe-jafe tamit Macky Sall mi lée waaye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 waaw mënta def lépp moo tax ñun nag ñuy jéem a jàppale kon seen yi ak jigéen ña ànd càng day sali jëng jóob cay ànd falaat Macky Macky ne day faluwaat réew mi ko wax ma ne la ni ki waaw ma nga woon ca Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général Mouride Alaaji Malick Gakou nag ba mu yeggee ca jëmu jutari joojee daal dinay sàkku ca moom ñaan ngir am ndam ci élection présidentielle ya benn ñaar daal dinay sàkkuwaat nag ci jëmu jutari joojee Mbacké ba lay sa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 jël